kaddu yi nga xam ne moom la fas yéene yëkkati jëmale ko ci askan document honorable ñu salaam wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi ndokkeel julli ci àdduna bi yëpp loolu mooy yéene bi ndokkeel doomu adama yi yëpp dëgg dëgg loolu mooy yéene bi ndax doomu aadama yi ah, rawatina jullit yi ñoo tax yàlla def li mu def ak kii tax ak kii mu ko defal muy Seydina Muhammad waaye lu ko jiitu it ñi nga xam ne ñoo moom ñoo doon bokk benn mission bi bés buñ koy séentu ba dund ko sant yàlla daf ñoo war te mel na ni tubaarkàlla xel yi war nañu dal xol yi war nañu sedd ci ni mu amee loolu moo tax ñu ngi ndokkel gannaaw julliti àdduna bi julliti Sénégal suñuy kilifa ci réew muy kilifa diini ji suñu njiit ci jamono mu njiitu réew mi ak njiitu dëkk yi gox yi gox goxaan yi ak borom kër yi waaye rawatina njaboot gi tabaski moom euh, feet la bu bëri lu muy làmboo lu bari lu muy tekki waaw kon nag li mu làmboo li muy tekki yëpp yal na ñaal dimbali suñu ngëm yàlla suñu diine ba ñu méngoog loolu yàlla nangul ñu ko euh, waxtu wi mu xew nag. tax na ba du ñu mën a ñàkk waxtaan euh, waaye li jiitu ci waxtaan yi mooy sant yàlla ci def-def yi xéwal yi euh, sant yàlla ci li ñu si borom xéwalee ñi def ko defee ko ni mu ko ni ñu ko mënee ci biir ni ñu ko bëggee woon ndokkeel jullit yii yëpp ndokkeel waa dëkk bi am nag ay waxtaan yoo xam ne ni bëgg nañ ko waxtaan ak réew mi ak àdduna bi bi ci jiitu mooy fàttali suñu bopp fàttali jullit yëpp ne. adduna baa ngi dund loo xam ne nii ah, adduna baa ngi dundu jamono boo xam ne nii war nañu bàyyi xel li tax yàlla binduñu wàccuñ ci adduna te bàyyi ñu fi ma wax ne warugar yëpp dafa nekk impératif rawatina nas nasu nasu dafa gën a nekk impératif nasu nag mooy comme ay per yu ñu jël def ko kurus ni ñu mel nasu mooy nangulante déggoo bennoo nekk benn waaye fàttali jullit yi ne leen fexe ñi daan fexe pour diine l'islam du jolli du jëm kanam du mel na war a mel ñu ngi ko di am fexe yi bi ci jiitu ci at yu néew rek booy lim mooy bi ñuy wax di soofental alquranul karim nga xam ne benn arafu alquran moo gën rasulullah sallallahu alayhi wasallam ngeen gi mën def am na ñu jógoon doon ko soofentel bay wax naan verset satanique ku wéji laajal ñoom Salman Rushdie jékki-jékki ñuy soofentel yenent bi indi bi yàlla jaarale ci moom alxuraan karim bi yàlla jaarale ci moom l'islam muy Seydina Muhammad xayru xalqilaa ñaan caricature du prophète Muhammad. ñu jékki-jékki di di di jéem a gàkkal pas-pasu juli di. di yëngal ay attentat ci jumaa yeeg jàkka di ko askanale Juli yi ah dunay dox di dox di dox ba léegi nag ñi indi bala am lu xew ci jamono te bu ñu ko toppee nag mu soofantal pas-pasu jullit yi ak dundinu jullit ñi seen diine ci Europe ak ah, ci ah, ci ah, Occident li may wax mag ñi xam nañ ko ñiy déglu yit ñu gëstu xam nañ ko balaa ñuy wax affaire laïcité diine dañu dañu dem ba ñi gëmoon catholicisme wala jëm judaïsme léegi seen jaamu yàlla demetul noonu. lu ko waral dañu soofental nit ñi jaamoo yàlla léegi nag lislaam it julli jumaa julli mbooloo ni mu amee solo julli ayet amee ko solo julli ci mbooloo ata jamaatu rahma ah ah léegi bu ñu deful ndànk ak covid bi loolu dañ koy bàyyi ma ne nag lii am ci nekk bi la jëm nañu jog ñun bu ñu yées suñu maam yi bu ñu yées sahaaba yi àndoon ak rasulullah sallallahu alayhi wasallam ndax ñoom ñoo daj lépp bañ mën cee jëriñoo ma ne kon tey li ma bëggoon a nasiha sama mbokk jullit yi te waxtaan naa teg ay yu bëri te maa ngi ci waxtaan ak këri diine mooy nañu bàyyi xel suñu diine jii ndax dama ne aj mën naa wàcc ma Samba ak ma Demba ndax ma Samba ak ma Demba wàccoowuñu wala matalewuñu wala remplir critères ak conditions yi pour dem aji waaye aj moom ci ni mu li mu tekki ci jullit ñi wàccul benn yoon jullit ñi ci at mu jot te ren comme daaw ak daaw jéeg wàññi nañu mbiru aj bi ba ne léegi kenn du jéego ci fu dul màkk dem màkk aj yi waaw loolu su ñu toppee nag ci suñu dëkk yi danañ dem ba kenn du dem ci jàkka ji julli jeexit kenn du dem ci jàkka ji ak jumaa yi julli ci jumaa foofu lay waxee ak doomu aadama yi ma ne donc nañu nañu bu ñu nangu saaleyka salaam wa rahmatullah bu ñu nangu saaba yi andoona rasulullah salaam gën ñu bu ñu ànd bu ñu nangu ñu àndoon maam alaaji Malick gën ñu bu ñu ànd ñu ànd bu ñu nangu ñu àndoon ak maam borom Touba gën ñu bu ñu nangu ñu àndoon ak maam Abdoulaye Niass Cheikh al Islam wala maam Limaamu Laay wala wala ñoo ñëpp gën gën ñu foofu laay baaxantel nit ñi parce que diine ji ci réew mi quatre vingt pour cent julit lañu musulman lañu dafa jaadu woon julit ñi laante biir waxtaan dimbali Sénégal mi nga xam ne dafa mos di am taxawaay ci Palestine am am taxawaay ci monde aussi pour que sunu président de la République xam ne fa Senghor nekkoon te moom mi doon catholique te daan laxas jaxasoo ak réew jullit yi bay rek la ay problème yu rëy ci àdduna fa Abdou Diouf nekkoon ci wàllu diplomatie fa Ablaye Wade yemale woon réew mi ci wàllu diplomatie moom da ko war a weesu ndax moom am na chance ñooñu gisee ñu jëf te ñooñu ñu ngi fi bàyyi ñu ñu am expérience loolu laa bëgg a waxtaan mais comme euh, nit ñi euh, li duuf yëpp xajul ci ci cin li bu fi ngoonee ak ci ziyaar yi ñuy def danañ saat bu baax a baax ci waxtaan yooyu fàttali suñu bopp fàttali ñëpp li nga xam ne moo ñu war amaa nag li des mooy euh, dëkk bi def nañ liñ mën ci li ñu war waaye def ko ci sutura ndax sàmmoonteeg mbas mi defe naa ne bëri na ñu jëriñoo ci wërsëgu wu yàlla jaarale ci suñu loxo ci loxo mairie bi bëri nañ ci jëriñoo ñoo xam ne nii daf leen fekk seen kër waaw ci sutura waaw ku leexal waaw fañ nan def itam di ko defal Kaffrine jëm ci kilifa diini yi ci réew mi def nañu ko ci sutura euh, du nag dañ ko am wala ñu ñuy jàmbaar dañuy sant yàlla ndax dëkk bi moom li am solo mooy waa dëkk yaakaar na ne xam nañu gëm nañu ne li dëkk bi am tam tabbi suñu loxo ñun conseil municipal def nañ ko ci dëkk bi képp sunu kàttan di dëkk bi amul it ñu ngi cee xaar suñu tànk tubéy pour ñu indi ñu ko fi nii bu dikkee nu bu di dikkoo xeeroon fu mu mënti jaar daal intéressé wuñu l'essentiel da dikk ci Kaffrine la ci des it mooy na waa dëkk bi xam ne su fekkonte ne 2009 ba nëgë ni nekkuma ci jub ak ormal ak rafetal li ma yore dëkk bi kon du ñu wutale wujj dañ ma naan ciix ne ma ràpp béréb bu samp keneen li ma bëgg wax mooy xam naa li ma indi ci àdduna bàyyi ma fi xam naa ñi ma jur xam naa li ñu ma yar xam naa askan a bokk xam naa li ñi xaar ca man xam naa li soppe yi bëgg ci man du ma leen rusloo du ma yàq du ma fitnaal du ma toroxal kenn waaye daal maa ngi ca la ma nekkoon maa ngi ñaanal nag doomi Kaffrine yëpp ñi feeñ seen tur ak ñi seen tur feeñut te ñu jël seen alal ak seen wërsëg séddoo kook seen i bokk ci région bi laa wax ci département bi ci commune bi ñëpp ñi takk tank tànk bala ñu ràngaleen ci jamono bala yàlla wërsëgal leen ñii politique te bokk ak nit ñi li ñu am ñëpp maa ngi di sant di leen dal ndax def man lañ ko defal may may may ndey ji seen donc lépp lu ma wax waxuma ko parce que dama am xam-xam waxuma ko parce que dama bëri wax dama ko wax parce que yàlla daf ma dénk dëkk bii ma nekk tey maire bi tey ñaan yàlla mu sax ci suñuy loxo ñu wéy di ko continuer liggéeyal dañu war di maslaha ak laamisto ak kilifa diine ndax ad diinu nasiya loolu kilifa diine yi ñu waxtaan ak ñoom ci xutbu yi ak ci waxtaan yi euh, danaan ci dellu si waat yeneen jamono fi mu toll ni nii na nit ñi rey xar yi te gaa ñi bañ a roddu seen bopp ñu sant si ñu sant ndaw ñu sant sàll ah nañu moytu bu baax bañ a roddu seen bopp bala bu ñuy fees dégg nga jaawale xar meeg ah. nañu fexe itam añ yi teel a pare ñu yàq ko ci pénc yi te bokk ko ak njaboot gi xale yi waaye nañ jox xale yi déwénal te ñaan yàlla yàlla may ñu nawetu jàmm nawetu barkeel ñu fekkee ko déwén defoon nañ ko daaw fekk ko ren dañuy sant yàlla bu baax tey baaxental di ñaan yàlla fekkee déwén te bu déwén na may ñaaw na dàq kon nag ñu ngi gërëm bu baax a baax a baax sant bu baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu kulaa muñ maan tubi xeen jërëgéen jëf